secteur vitaux yoo xam ne euh, offensive bi ñu ci waroon def defuñu ko ci te secteur yooyu daanaka bu ñu leen toppatoo woon mën na régler lu bari muy l'agriculture ak li nga xam ne moom mooy la la la la la pêche dans le secteur de la pêche on a l'impression que Sénégal ba dafay wéy di dund ci colonisation on a l'impression parfois que le ministre même amul les moyens d'agir et de contrôler ministre bu ñëw ndeysaan di nga def sa kéemtalaay kàttan mais dafa am beaucoup de choses yoo xam ne dafay échapper a ton colonisation ci ban domaine à ton à ton contrôle quand je dis colonisation c'est des c'est des étrangers c'est des c'est, des acteurs étrangers yu bari du rek ñi nga xam ne ñoom ñoo yor euh, ñoom la Sénégal di di signal ñoom ñooy euh, la ñuy ñoom la ñuy délivrer les licences là dafa bari acteurs yoo xam ne euh, extérieurs yoo xam ne parfois le ministère amul trop maîtrise wala parfois le ministre mënul automatiquement euh, changer la la la la donne. maa ngi may mun a foofu dama lay éclaircir te defe naa ni bu ma toogee di waxtaan wax ak télé damay mën a wax ci suma àqulaay taala déformation désinformation bari na ci bu ñu ne colonisation on pense aux licences de pêche qu'on signe avec les étrangers pas seulement aux licences de, de, de, pêche avec les étrangers, on n'a on, on, on a pas un total contrôle de nos, de nos, de nos eaux. dafa am dañ ciy egg par étape affaire u contrôle ak surveillance buñ ci ñëwee nañ ci xuus je viens de boucler un an dans ce ministère je vous dis à l'heure actuelle en 2023 23 licences 23 licences le Sénégal signé ak l' étranger te mu ngi concerné benn produit benn produit ak beneen boo xam ne bi c' est accessoire benn bi c' est le thon sur ce thon nous avons à peu près je pourrais dire seize canneurs astafurlah seize senneurs et quatre canins merlu dañ ci nekk en phase test pour mille ton trois licences moo am pour l'Union européenne bu weesoo ñooñu y a que une licence de des îles de Cap-Vert lañ fi demandé am ko te mosuñu ko sax utiliser donc daf ci bari amalgame bu ñu waxee jaay nañ géej gi def nañu ñuy géej gi non. pour 1700 tonnes. non le ton pour 10 000 tonnes. pour 10 000 10 000 10 000 tonnes bariwul. 10 000 ton mais ton. kan moo gisati ton ci dëkk bi. dama lay expliquer kan moo gisati ton ci dëkk bi. man de gisatuma ton ci marché bi. ton dafa bokkul sax ci suñu habitude culinaire. kay non non ma ni. ton ñi nga xam ne ni ñu ko ëpp ñu ko utiliser mooy les usines de transformation. non ton ba ñu koy gis. Ah. les familles sénégalaises moyennes. Euh, dañ ko daan toggee ceeb mais dañoo gisatul ton. je veux bien mais madame. ton bi dañ ko daan def ton. mani dañ ko daan def genre euh, genre sardine. Euh, Sénégal famille sénégalaise yi di ko réeré. xam nga xam nga xam nga euh, concernant ce dafa bokk ci li ñuy wax pélagique hauturière quand di dit pélagique hauturière ñoo ngi koy mën a jàppee à de vingt quatre mille miles c' est mer. le temps am na structure bu tudd ICCAT moo régir la gestion du thon au niveau mondial et au niveau de l'ICCAT pour sauvegarder cette espèce pour mu bañ nekk en disparition réew bu nekk da nga ci am quota réew bu nekk da ci am quota buñ la jox parce que thon mooy loo xam ne lii mën na xëyee golfe de Guinée fanaan si Dakar pélagique la hauturière gaaw trop il faut des bateaux extrêmement puissants pour mun leen topp te ce thon-là reste dans les eaux selon les scientifiques sénégalaises que pendant trois mois bu paree toxu na dem na yoonam donc mën nañu nekk fii trois mois admettons de janvier février mars mais de mars à décembre thon bi nekkatul dans les eaux sénégalaises migré na dem feneen def ci bëri amalgame ak wax joo xam ne ji en âme et conscience ña koy sooke ak ñi ko wax am na duñ ci bëgg mais question boo posé naa la ci tontu ci.